Guinée ñun waa Sénégal de arrivé nañ waa Guinée léegi yéen da ngeen xaar ba suba wala Guinée mana ne ñun waa Sénégal de toog nan arrivé nañ waaye yéen a ñu doon yéen a ñu doon reetaan incha allahu rabbi da ngeen ñëw léegi voilà ma Guinée ñu ñaawal ñun Sénégal arrivé nañ da ngeen fanaan ba suba wala da ngeen ñëw léegi waa waa kii Sénégal dina ngeen jëf avion bi li ngeen togg rek sama xol seet nag wax dëgg yàlla toog ngeen reer doy mais mbokk nañ Guinée gine da ngeen ñëw léegi wala waaw ñun arrivé nañ ba ki nga suñu ngi ni taxaw mooy Sénégal yaa ngi waaw léegi Guinée ma ne da ngeen di fanaan da ngeen ba xëy wala da ngeen ñëw léegi dëgg yàlla ñun de aks nañ ci jàmm reer dafa seer foofu de acaki dafa seer de te ngeen topp guddi gi rek dem Guinée léegi gën ah waa Guinée toog nañ waaye nderek ña toog nañ ja dina jaay banaana bëgg noo yab daa mën a ne Alboury dégg naa Guinée Guinée toog na de suñu dëkkandoo yi doon mer ay ñoom Alpha May gaak Ahmed Fafana léegi Guinée damay laaj man maa ngi ci vol bi incha allah damay laaj ba xam da ngeen di jël vol bi sama ginnaaw wala ma taxaw xaar leen ndax foofu bu ngeen fa fanaanee sandis bu ngeen fa reer téeméer ngeen fukk lay doon de sept cent lay doon de wax dëgg yàlla. Guinée ñu keroog dama leen mere. da ngeen a juum keroog warul ñoo gañe ngeen si biir ñu ay dëkkandoo te ñun lu mu gàtt gàtt chaque jour di ngeen lekk sénégalais bu nekk sept cent sandwich yëpp yéen a koy jaay ba noppi yéen yàpp ngeen jaay yéen yéen ñu jaay chaque jour lépp lu ngeen am waaw si ñun suñu loxo la jógee loolu yàlla dogal yéen bu ngeen amee ay mool ñun ñoo tax yéen bu seen jabar solee mam ñam goldu mètre douze mille ngeen sénégalais ya tax yéen mën ngeen diñu jaay sandwich sandwich yi ngeen jaay sept cent la ngeen di compter yàpp wi maanaam da ngeen borosé da ngeen koy compter un deux trois kaasum ci loolu ñu gan ñu ngeen di sibile waaw léegi comme gañ nañ leen te suñuy dëkkandoo ngeen suñuy wëlër ngeen dañ na ñëw léegi wala ngeen xëy ba suba waroo ree kulab te picc bu nekkee ci loxoy gone warta ree picc mi ci daal bi dañoo newoon ci loxoy gone yi nag ñeen ni bëxi léegi ah, wax dëgg yàlla sikkim lakkandoor na ku ne baxam bosom dañu ñibbisi rek Guinée ba léegi nun ciy def ñu waxtaana bu leen bu leen am defe nag ba tax ngeen yokk diwu tir ji wala ngeen yokk socc yi bu leen yokk diwu ñor Ameth Mbaye rek nga góorgóorlu. xamal lu ma la waxul. sànni 700 la yam démb rek 700 nga woon. gaa yaay la woon foo ree jeex na jeex la paix ñun ñoo far on est ensemble. mais nag bu leen yokk diw bu leen yokk sotti. banaana fa ne woon ba ko fa. kilo bi 1000 francs bu leen yokk 100 francs naan banaana dafa cher dafa cher. déedéet seeru fa ne woon. te ngeen jël wal ñëw léegi lu ngeen fa reere da koy fay de. fo woon rek